leen ziar bu baax di leen ndokkeel ci weer wi weeru koor wi di jiital ci loolu lépp kilifa penc nii te yàlla dogal ne muy kilifa penc Sëriñ Tuubaa yëpp di Sëriñ Muntaxa di ñaan bu baax kilifa yi teew ci jotaay bi sëriñ Muhammad Abdullah ak kilifa yëpp di jëkk andi ay kàddu rek ci turu akademiyatu minal baaxil qadim di l'ulum ci na bi Serigne Cheikh Mbacke Xaadim mi moom Serigne Mountakha ak Serigne Mountakha nga xam na nga xam ne suñu bokki jullit ca Palestine ña nga koy dund ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon jullit ñi jullit yi nañu war mel ci bëggante ak yërëmante ak soppante mooy melaw jënd jëm jëm ju lépp luy metti cër jëmm jë cër bu cay metti cër yépp dañ koy yëgandoo kon ña ngay yëg dañuy dund bu baax lu mat juróom ñaar fukki at ci ren ñuy dund fitna ci seen diggante noonu lislaam yi ba bërki dem ba ci mujj altena ji jàll rek ñu rey ci ñoom bu ëpp juróom fukki nit nga xam ne leer buy nàmp toll ci juróom-ñetti weer ca la bokk gaañ ci ñoom lu ëpp ñaari junni nit te ñañ ko seqal amu ci kenn ku ban ko xori kon loolu du xare loolu kon dañ leen a tiim di leen faagaagal kon ñoo ngi am ak ñoom yëg-yëg boobu di leen ñaanal sunu boroom xettil leen ci barkeb Sëñ Tuubaa mi nga xam ne jamonoom jullit ñi fu mas a jaaxle ñëw ci moom daw ñëw ci moom ngir sàkku ci sàkku ci moom xettil ko Yàlla ba muy nekk gànnaar waa gànnaar doon nañ dugg dugg fitna dañoo ñëw ci moom jàmbat ko ko mu taalif xasida wa kaana xaqan jox leen fitna mu ñëwee njaareem waa Madina Madina a waral jën rasulin jox leen fitna te takki kon ci barke ko moo ngi ñaan suñu moom xettali waa Falastin loolu kàddu yooyu lañ bëggoon a jiital ci turu académie bi tey nag ñuy waxtaane benn ponk benn ponk ci ponk lislaam lislaam suñu borom daf ne woon dafa tege ci juróomi ponk ci misaal lislaam dafa mel na nañ ko misaale am mbaar am kenn yu ko téye yu ko téye ay jën jën ya nag bu ca woyof rek day feeñ ca woyofu mbaar ma ponk yooyu tey lislaam nag ponk bi ñuy bëgg a waxtaane ci la bokk ba ca jiitu ndax ponk yi ci bay yëpp daanaka waxtaan nañ ko fii bii rek moo fi jaaragut ba ca jëkkate mooy gëm yàlla ak wéetal ko tawhiid daaw rek sëriñ ustaat bi nga xam ne moom lañu jox ponk bii ren waxtaane woon na ko fi ponk bi ñu génn léegi muy julli waxtaane nañ ko fi asaka noonu koor waxtaane nañ ko fi moo tax ñu indi aj aj Makka parce que yéene parce que yéene fàttalante nun murit yi nag ponki lislam yépp dañ cee yem ak jullit yépp ndax ndigalul yàlla la dañ cee war a farlu na ci jullit yépp farloo waaye war nañ ci amaat suñu farlu bopp ndax bu ci ne na ca sëñ Tuubaa barki biig ci kumte gi sëriñ Muntaqa bi muy wax bi mu tuddee koor gi ne gan gi da ca teg gan bu sëriñ tubaa fonkoon la kon fonkeelu sëriñ Tuubaa ci ponki lislaam yooyu noonu ab soññ la war a doon ci noonu aj Makka noonu la ci meloon bi muy bëgg dem ci géej gi rek sëñ mat la mu jox dagana wax na ci téere bi ne dafa amoon bëgg gu tar bëgg gu tar bu mu bëgg a dem Makka شوق الشديد إلى حج بيت الله الحرام وزيارة النبي الكريم mu ne ba am na sëñ mat la mi nee na am na ci waa gànnaar bu ñu wax Muhammad ibnu Xab na ko sëñ bi woo na ko ci atum mujj mu Tuubaa moom ne ko ndax bëgg ngaa dem mag hal laka ilal xaramayni sharifayni min mu ne ko lool ku ma ci dimbali mu ne ko demal waaj dellu ci sa waa kër nga waaj mu jug at nii insha allah nga ñëw ñu ànd ñu ànd dem Makka nee na naar bi ne ko fa ida ana bil xaraka ba ma demee di waaj bu mu tur rek mu dégg diggante na tubaab bi ñu jël ko yóbbu ci géej waaye lam nekk ca géej gi lépp mi ngi wane boo delloo ci xasaayid yi da nga ngi wane mu bëgg a demee Makka siyaare bi yonent bi sallallahu alayhi siyaare barab yi xasida gëm taalifa ci kër gi di xasida gorom naa njës ga ca muy wax waqut nii lil baqii alladi tadab madaxu ñaan yàlla muy dimbali ko mu dem ca barab ya tudd baqi ya fa saxaaba ya tëdd nga xam ne kañ fa jëkk denc mooy Usmaan ibnu Usmaan ibnu Mas'uud muy ñaan yàlla ci barkeb ci yërmandeem ci mu may da yonent bi gis nga muy ñaan yàlla mu may ko mu siyaare ji Madinatul Munawwara dem Makka siyaare yonent bi ardu bi rahmatihi muhdati sayyidina zawri madinatahu daaru rayaahi bindam yépp mu cay fen dem na ba àgg ci di wax ni ko aj màkk ñore naan yasuu nii mawti wa ayni lam tëra wa lam aral madinatal munawwara dama dana ma metti lool ma génn àdduna te gisuma kaaba ga gisuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gisuma madinatul munawwara dem ba naan yahtasu qalbi ya xubban زور روضته yaa laytani tirtu aw lii kaana durnuuf mu ne sama xol baa ngi futt ngir bëgg a siyaare ji yonent bi ak a neexoon ma ne fër naaw wala ma am warukaay yu am doole gëléem am doole mu yóbbu yi defe naa mébétam yooyu mottali ñu bari ci gannaaw mottali nañ ko ko ñaata la ay ci waa kër ñoo war fa naaw dem aji Makka defi seeni farata waaye àggale ko yeneen jooju kon loolu rek bokk na li ci yi war a tax aj màkk ñor murit bu ne gannaaw bu nekkee nag ndigalu yàlla mu war ñoo yitteel ngir loolu tom boobu kon la ñuy waxtaane tey jox ko nag boroom xam-xam boo xam ne moom muy sëriñ Abdou Lahad Sané doon nañ ko xam xamle nit ñu daaw waaye ren moom def naa bu jar kay solo moom barab bii xam na ko bu baax barab bii mu toog la damay misaale ni ko borom bi xamee la Farzadaq tontu woon ka doon laaj Zeynul Abidin dafa am ci xulufaaw Bani Umayya koo xam ne dafa jóge Sham ak si Makka ba mu waree Kaaba gi ba noppi di dem ci Hajarul Aswad ba Koofuun mbooloo ma bari ba mënu ca àgg mu dellu gannaaw taxaw moom xalifa bi nestu bi Ali Zeynul Abidin moom soxna bi moom bi mu waree Kaaba gi ñëw jub xajarul aswad jullit yëpp deltu gannaaw may loo xam ne mayuñ ko woon a xalifa xalifa jullit am ci waa Sham ñu ànd ak xalifa bi ku jaaxle ba laaj ne mën a kii kan la man haada alladi kii jullit ñi wormaal war ma jutal ñi ku mu doon xalifa bi ne ko xawma ko far sadaq moom boobu ma nga fa daal di ne ma xam naa ko daal di sadd xasida gu neex ne ko haada alladi taarifu albatxa wadata haada altaqiyu alnaqiyu altahiru alalam haada bnu fatimatin in kunta jahila bi jaddihi anbiyaau llahi qad xutimu haada bnu xayri ibaad xayri ibaadillahi kullihim teg ca wa laysa qawluka man haada bi daa'irihi wala urbu taarifu man ankarta wala ajab bay bu jëkk bi rek laa soxla mooy ne ko kii boo ko umpale bërëb bërëb yii mu teg tànkam ñoom xam nañu mooy kan kon sa ñëpp ak saani moom it defe naa fii mu toog xam na ko bu baax ngir njàngalem lislaam mu leer mu wér macha allah li fi joxe kon foofu rek lañu yem ci xam ne ko moom di ko jox kàddu gi bismillah ak ziyaare gi cheikhuna cheikh Mouhamadul Muntaqa Mbàkke mi nga xam ni mooy njiitu barab bi njiitu penc mi ak penc Serigne Touba yépp di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan lool ak wér ndax jataay bii ak jataay yu mel nii képp ku ko xam-xam nga ni dundam yi rekk mooy yitteem mooy xam-xam ak tasaare xam-xam ak fu ñu ko mën a tasaare kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ba li nga xam ni ngéeju na ko ci ak sémb yi nga xam ni da ko sémb ci wàllu xam-xam yàlla yeggale ko bi barakati Cheikhil Khadim gannaaw loolu it ñu ngi nuyu cheikh Modou Abdullahi Mbàkke nga xam ni mooy al imaamu ratib ci jumaa ji ñuy defe waxtaan wii eh, gannaaw loolu li nga xam ni mooy mawduu waxtaan wi tey di alxajju ahamiyatuhu wa axkaamuhu muy xaj solo si ci ne ak ay atteem mawdu la tem la boo xam ni njariñam dafay delluwaat ci lamu aju mooy xaj ci boppam sëñ boo wax na ko léegi xaj dafa bokk ci ponki lislaam dafa bokk ci ponki lislaam yeddi juróom mu doon ponk woo xam ni it sunu boroom da ko jox gëdd gu rëy rëy rëy jox ko yitte yoo xam ni yitte yu rëy la ba tax ponki lislaam yeddi juróom moom la suñu boroom njëkk wàccee jox ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndigal te fekk na sax nag bu ñuy xool jëmmi xaj ci boppam xaqiqatan ba muy am mënees na ne yeneen ponk yii bu ponk bii di ponku shahaadatu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mënees na ne ci am ci jëmmal ko ci jëfe ko ci anam gi moo jiitu yooye yépp ndax ci jamono yonent yàlla ibrahima la amee woon aleyhi salaatu waaye comme ponk la boo xam ni dafa may particularité yu bari yu ci nekk comme ponk la boo xam ni ña koy man di def saa su ne mooy gën a néew ñaman di joxe azaka mooy gën a néew ñaman di woor mooy gën a néew ñaman di julli looloo tax sunu borom dal di koy taaxiiral ba ci atub juróom benneel ci gàddaay yonent bi ci la ko farataal ci moom waaye soññiwu ko it ci mu dem jooxe ji ko lu dul ci atub fukkeel ba ca gàddaayam ga kon xaj thème bii dafa fàggu ak solo si mu am solo ci ajuwaay ga aju ci li nga xam ni mooy xaj eh, sunu boroom nag dafa am nu mu tàmmewoon di ko doxale ay biram lu ne rek ca yemu bind da ci ami tànnéef wa rabbuka yaxluqu maa yashaau wa yaxtaar maa kaana xiyara jël na malaaka yi bind leen waaye am ñamu ca tànn ñu doon tànneef ci malaaka yi ñu gën ca ràññee <coughs> jibril mikail ak israfil ak azrail moo leen bind waaye moo tànn it ñeent ñi ci ñoom jagleel leen ay ngëneel ba ñu ràññeeku lool ci biir malaaka yi doom aadama yi ba mu leen bindee dafa am ay tànneef ci biir doomu aadama yi mu tànn ci yonent yi ci biir yonent yonent yi mu tànnaat ci ci biir ñooñu mu tànnaat ba seppi ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu doon tànneefu tànneef yi lilkulli min jumlati alaxyaari martabatun lakinnama ahmadul muxtaari muxtaaru kon mooy tànneefu tànneef yi naka noonu noona la sunu borom tànnee ci bis yi bisu àjjuma mu doon sangi bis yi ci bisi semaine bi tànn na ci bisu àjjuma mu doon sangi bis yi naka noonu ci weer yi mu tànn ci ay weer ñu doon weer yi gën ci weer yi al ashhurul xurum ci la te ashhurul xurum yooyu euh, weeru xajit surtout fukki fan yu mujj yi ñoo ci gën ci weer yi mu tànnaat ci weeru koor mu bokk ci weer ya mu tànn ci weer yi yu ci ne ci yooyu am ay yeneen yoo xam ni Eh, ci biir tànneef gañu doon tànneef ñoom weer yooyu dañu amaat ay gëléem yoo xam ni bokkuñu ko seeni moroomi tànneef ci weer yi xaj am na ay xusuusiyaat yoo xam ni weeru koor amu ko ni ki weeru koor it amee ay xusuusiyaat yoo xam ni xaj amu ko tànne na noonu it ci guddi yi comme na mu ca tànnee guddig laylatul qadr ci bëccëg yi mu tànn ci bëccëg yi nga xam ni mooy fukki fan yu mujj yi ci weeru tabaski yooyu yépp xeeti tànnin la yu sunu borom di tànne ca yemu bind ni ku mu ko waxe wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar moo bind te mooy tànn kon yàlla ginnaaw ba mu tànnee ci weer yi weer yamu ca tànn tànn ca guddi ya guddi ya mu ca tànn tànn ca bëccëg ya bëccëg ya mu ca tànn e, naka noonu e, dafa tànn ay barabit def leen mu doon ay barab yoo xam ni dañu am ay jaglewaay Makka ak Madina ak Quds ci lañu bokk Quds gi nga xam ni liñ leen di teg jamono yii ñépp dégg nañ ko comme ni ko sëñ Aboo waxee léegi du ñu ci delluwaat kon yooyu ay tànneef la ci ay barab Eh, ci biir weer yooyu nag mu am ay weer yu mu ci tànn xam ni jëf ju ca jullit bi di def ci xeeti jaamu yàlla niroowul ak jëf ya muy def ci jaamu yàlla yu mel noonu ci yeneeni weer mu jagleel xeetu yonent bi lu mel ni weeru koor dëgg la ña jiitu woon weer ña jiitu woon xeet yonent bi daan nañu woor waaye du ci weer wi naka noonu la ñu jagleel ci weeru koor lu mel ni laylatul qadr ña ñu jiitu woon it amuñu ko woon waaye it mu jël xeetu yonent bi it leen li nga xam ni mooy xaj weeru koor mu diggee ca lu bare bare bare ci ay tuyaaba ci fari bàkkaar ci yëkkatee ay daraja weer wa jeex mu mel ni loolu dag dog na ca saasa mu tofal ca weeru weeri xaj yi nga xam ni ñaari weer la ak fukki fan nga xam ni mooy bi mooy bisi xaj yi ñaari weer ak fukki fan ndax bisu kori ca la aj commencé bisu kori te ca la aj commencé ba shawaal gi jeex zulqaada ñu ngi ca xaj zulhijja fukki fan yi teg ci ñetti fan ca topp fa man taajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ñetti fan yooya xaj dal bi jeex kon jël weer yooyu tofal ko weeru koor dige ca yu bare bare bare it jaglee la ko yu bare bare bare it yoo xam ni jullit bi du deñ ci ay xéewal du deñ di yëkkatiku du deñ di jege boroomam ci liggéey yu yu tuuti yu muy def yoo xam ni mënu ko woon a am ci yeneen ween kon yooya yépp dafa bokk ci ngëneel yi suñu boroom eh, subhaanahu wa taala yi nga xam ni da ko jagleel xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa comme koo xam ni saama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min naka noonu it man xajja lillaahi fa lam yarf yarfus wa lam yafsuq rajaa ka yawmi waladathu ummu nga gis ñaar yooyu ni ñu jegeyoo waaye it jéggal la say bàkkaar yépp na mu ajoo ci weeru koor naka noonu noonu la ajoo it ci xaj màkka ndax yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko ci ay xadiis yu baree baree bari xaj goo xam ni jaam bi da ko defee naka ko sunu boroom digale yonent bi xamle ne dafa bokk ca ya gën a rëy ci mën a far ay bàkkaar comme ni yonent bi waxee ni man ja falam yarfuf walam yafsuq rajaa ka min zunubihi ka yawmi waladathu ummu képp koo xam ni aj nga te ci sa xaj boole woo ca rafas mooy lépp loo xam ni eh, lu yella bi la ci digganteeg diggante góor ak jigéen waaye it boole woo ca it eh, lépp lenn loo xam ni fisq la ci ay wax wala ci ay jëf eh, yàlla dana la jéggal say bàkkaar yépp ba nga mel ni keroog nga juddu eh, comme ni ko sëñ bi waxee ne wa xajjatun mabruratun laysa jazaa laha siwal jannati fii ma ubrisa xaj goo xam ni mabruur la jooxe nga ko nañ la ko digalee amul genn payoor lu dut àjjana bis comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ci xadis kon xaj dafa bokk ci porte bunt yi gën a yaatu ci bunt yi far bàkkaar waaye bunt yi gën a yaatu ci bunt yi yëkkati ay daraja waaye bunt yi gën a yaatu ci bunt yi jegeelel la sunu borom subhanahu wa taala looloo tax sunu borom def xaj mu bokk ci ponki lislaam comme ni ñu ko xamee ñun jullit ñépp te eh, ci xadiisu yonent bi ak xadiisu jibril ba mu ñëwee di laaj yonent bi sallallahu alayhi wa looloo tax sunu borom farataal ko ne walillaahi ala nnaasi xijjul bayti man istataa ilayhi sabila yàlla doom aadama yi ameel nañu ko ajal ko néegam ba ci képp nag ku ko man ndax ndigal la boo xam ne da koo itlaaq waaye it da koo teg ci charte charte gi mooy man maneel ga nag azadu wa raaxila ak euh, al amn dafa bokk ci yi nga xam ne lam yaxtalifi al ulama ci la ci istitaa am yóbbalu dem ak dikk waaye it euh, yoon wa doon yoon woo xam ne leer na wóor na euh, waaye it am waruwaay wu lay yeggale E, ba nga yegg e, e, ca Kaaba ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it ngir wone loola ne xaj ponk la ci ponk lislaam taxoon na mu wax ni bu buniyal islaamu xam xamsin lislaam dañ koo tabaxe juróomi mbir bokk na ca yooya xajju baytillahi alxaraam nga aj kaaba gi dafa bokk ci yi nga xam ni ñooy ponk lislaam kon képp koo xam ni it yàlla dogal na xajaguloo te fekk man nga ko attan nga ko boo yeboo rek nga gaaw ko jooxe ji ndax ponk la ci ponk lislaam ndax ponk la ci ponk lislaam e, ibnu abbas jële na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi nee na taajjalu ila alxajji fa inna ahadakum la yadri ma yuradu la rawahu ahmad ibnu abbas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bëgg a xaj booyaboo rekk nga gaaw dem aji e, ndaxte kenn ci yéen xamut lu koy gaar ëllëg yoon wi leer na wóor na am nga yóbbal am nga wér gu yaram am nga waruwaay yonent bi nee na demal ndax ëllëg mën ngaa ñàkk benn charte ci charte yooyu te ngeneel ya nekk ca aj bu boobaa du la warate waaye nag teewut ngëneel lu rëy rëy rëy faat na la ku mënoon demut mënoon a dem demut ba xaj ga weesu mu dem ba man googu soppiku doon ak tële eh, bu boobaa eh, doonte ba tële remplacé ak man xaj waratu ko waaye teewut yool wu rëy rëy faat na yool wu rëy rëy rëy faat na ko moo tax yonent bi daan ñaaxee Eh, ci nii ku ko man boo yeboo nga def ko surtout nag ci jamono ya nga xam ni màgget agoo ndax metti na léegi métti goo xam ni eh, foo ko natt rek ëpp na ko kon ku ko man te fekk tëleeguloo boo yeboo nga def ko balaa ngay màgget eh, ba tey dafa bokk ci ngëneel yi nga xam ni xaj da ko am te yàlla subhanahu wa taala def ko ci ba tax mu farataal ko ci ay jaamam ngeneen lu rëy lool loolaa tax yàlla digle xaj waaye benn yoon rek la ko digle ci dundu nit ki ci dundu doomu aadama bi benn yoon koor dafay répété ak at mu jot fa man shahida minkumu shahra falyasumhu julli dafay répété wu bis bu jot juróomi yoon natt azaka dafay répété wu maadaama charte yaa ngi daje ci ki ko def ci ci ci ci ki nga xam ni euh, am na ko waaye xaj donte mën nga ko at mu jot waaye benn yoon lañ ko farataal ci yow ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee ne inna allaha faradat alaykumul hajja dafa am ab saxaabi bu jóg bu tudd al aqra ibnu xaabis mu ne ko yow yonent yàlla di afi kulli aam ndax at mu jot la xaj doon farata ci ñun yonent bi ne ko law xultu naam la wajabat bu ma ne naam bu ma nee waawaaw rek day war walaw wajabat la mastataatum te bu waree ngeen ko mën a def ak mu jot alxajju marratun waaxida wa ma bi ne ko xaj moom benn ca topp nag loola ci sa coobare rek nga koy defee waaye xaj benn yoon la war jullit bu ne xadis boobu eh, abu daawuda nasaayi ak ibnu maaja ak Ahmad ibnu Hanbal solo nañu ko e kon waxtaan ci mawduub xaj lii mooy solo si mooy dafa bokk ci ponki lislaam waaye it ngeneel yecca ne dañu bari lool takku lool ci yëkkati daraja ci fari bàkkaar ci jege la sunu boroom looloo tax thème bu mel nii am solo su toll nii ndax ca la mu aju loolaa am solo ca la mu aju looloo bokk ci ponki lislaam moo tax waxtaane ko am solo eh, tem bari na yuy nit di traité eh, dëgg dëgg la sax yu bari am na solo waaye seenu aman seenu ëppante seenu am solo dafay ëpp dafay dafay dafay ëppante am na yoo xam ne dañu am solo ba yegg ci lool waaye am na yoo xam ne dañu am solo am solo boo xam ni bu yemm mbaay la yenn saay sax nag nga fekk tem bu ñuy traité ci barab te fekk solo sa sax taxut mu dem noonu mu demee noonu waaye amut benn ponk boo xam ni mënees na ko traité ci waxtaan wu ëpp solo xaj gannaaw wéetal sunu borom gannaaw ba mu weesoo waaye it gannaaw ba julli weesoo ak ñooña nga xam ni ñoom la bokkal doon ponk ci ponk lislaam looloo tax waxtaan wi ñu séddale ko eh, ci ñaari maqsad ñaari jubluwaay ndax bu fekkee ni mawdu bi mooy ahamiyatul xajji wa kaamu séddale nañ ko ñaari eh, maqsad maqsad bu njëkk gi mooy ahamiyatul xaj am solo ji mu am solo dinañ ci wax aslëf ci ngëneelu xaj waaye dinañ ci wax aslëf ci njariñ la mu am njariñ yoo xam ne fii ci àdduna la ak njariñu alaaxira waaye it dinañ ci wax aslëf ci jeexital yi nga xam ni xaj mën na koo jeexital ci eh, doomu aadama bi ci aji aj gi Eh, ginnaaw bi dinañu dugg it ci ñaareelu maqsad bi mooy ahkaamul xaj ji eh, li ñu ci njëkk a tanaawul mooy wàllu xaj ci boppam lan mooy maanaa alxaj xaj bu ñu doon seet di gëstu maanaama daanaka maajim ya ca wax yépp ci menn mbir lañ ko delloo mooy al al qasd alqasd mooy jublu jublu ci dara loo nga xam ni jublu nga ca jëm loola dañ naan xajajtuhu aw xajajtu ilayhi jublu naa jëm ca barab sàngam walla jublu naa jëm ca mbir sàngam bokk na ci maani yooyu nga xam ni dañuy làmboo maanaa xaj mooy xajju baytillaahi alxaraam lañ ca jublu nag mooy xasdu baytillaahi alxaraami li ziyaara jublu néegu yàlla bi ngir dem de jooxe fa la nga xam ni moom lañ la sant eh, kon loola mooy maanaa xaj ci alluxa mooy rek jublu eh, bu fekkee ni ci nag eh, maanaa alxaj shar'an fi alxaqiqa alsharciya la ñu jublu ci xaj mooy xasdu baytillahi alxaram wa jabali arafata fi shuhurin maalumatin lilqiyaami bi amalin maxsuusa mooy jublu néegu yàlla bu ñu xormaal ba boo déggee ñu naan ko alxaraam mooy lu dagan lu bari dagan na ci barab waaye néeg booba ya dagan foofa daganu fa moo tax ñu naan alxaraam li ñu ne lee jëf jiikat dafa xaraam maanaa xaraam moomu rek moo nekkaat ci kaaba bi mooy eh, mamnu lu ñu xadra la lu ñu manu def fa lenn wala def fa lu bari ci loo xam ni mënees na ko defe feneen looloo tax eh, barab boobu di màkka defa fa bàkkaar wuute naag defe bàkkaar feneen fu dul màkk wa man yurid fiihi bi ilhaadin bi zulmin nuziqhu min adabin alim képp ku fa jubloo def lu yella di yàlla nee na dinaa la musal dinaa la mosal mbugal moo xam ni mbugal mu metti la eh, lépp loo fa def lu yella di bàkkaar ba dañ koy ful foofa rek lañuy fule bàkkaar bu dul loolu bàkkaar boo defee benn ñu fay la benn ñu fay la benn waaye boo ko defee nag ci màkka bu boobaa benn bàkkaar ba dañ koy ful def ko ñaar loola ibnu looloo taxoon ibnu abbas toxoo fa toxo màkk dem dëkki Taayif ba fala kon e, jublu baytullaahi alxaraam di màkka googa nga xam ni yonent yàlla Ibrahima moo ko tabaxoon tabaxoon ko ci ndigalu sunu boroom def ko jubluwaay pour ñépp nag wa id jaal na al bayta mathabatan linnaasi wa am na baytullaahi alxaraam xam ni la la ko yàlla jagleel dafa bari E, yujba ilayhi samaraatu kulli shay e, yàlla moom foofa la ko jagleel naka noonu yàlla def na nit ñépp jullit ñépp sa ku nekk sa xola nga fa pour pour pour jublu fa yàlla subhaanahu wa santoon ibrahim mu jóge ba Shaam ñëw xijaas màkka tabax si néeg boobu yàlla xormaal néeg ba waaye xaraamal fa lu bare loo xam ni amaana euh, man nga kaa def feneen fu foofu mu jig la waaye boo ko fa defee du la jig yàlla sant yonent yàlla ibrahim ne ko na ko tabax mu tabax ko ba pare eh, yàlla ne ko def naa la nga doon imaamu nit ñi inni jaa'iluka linnaasi imaama ngir rek eh, da ko tabaxal defal ko loo xam ne yonent yi ko jiitu woon bari nañu waaye moom la ko sant ne na ko def donte nag nee nañu barab baa nga fa woon yonent yu bari ñëwoon nañ fa doon xaj aadama xaj na am na sax riwaayaatu ñëw ni amul benn yonent lu dul ni mas na faa dem xaj waaye pour tabax ko nag jëmmal ko ba mu doon eh, nii mu mel nii tey ci barab bii mu ne nii tey jëmmal ko ba ku ko jàkkaarloo moom xam ni fii mooy kaaba gi noonu yonent yàlla Ibrahima moo ko def ba mu ko defee ba pare nag dafa bokk li ko sunu boroom eh, faye ca loola mooy ni inni jaa'iluka linnaasi imaama moom it cofeelu doom jàpp ko mu ne ko wa min zurriyati yàlla ne ko laa yanaalu ahdi zalimin eh, ku may déexlanteel day fekk mu nekk ca la nga nekk yow ci say sët waaye ku wàcc sa yoon jaar weneen yoon eh, bu boobaa aw moom genn engagement bu ma def ci teg ko palaas bu mel ni ba ma la teg yow kon loolu tax na ñu naan ko baytullahil xaraam eh, kon ci eh, xaqiqa sharciya wala istilaax sharci la ñu jublu ci xaj mooy jublu néegub yàlla bo bu ñu xormaal ba wala néegub yàlla bi nga xam ni moom lañ naan baytullahil xaraam di kaaba ga jublu ko waaye jublu arafa ndax bu ñu nee baytullahil xaraam makka ca Eh, la bokk ci màkka yi ca la nga xam ni ci xaram màkka la bokk moo tax mu ne baytullahi alxaram wa jabali arafa fi shuhurin maalumatin lil qiyaami bi amalin maxsuusa waxul mina waxul muzdalifa yooyu yëpp ko ci taarif bi ndax lan buñ nee la baytullahi alxaram ci istilaax wa gën a yaatu mooy màkk ci boppam mooy màkk te màkka mina daf cee bokk Eh, musdalifa daf caa bokk waaye arafa bokkul ci màkka arafa bokkul ci xaramu màkka arafa xaarijal xaram eh, kon looloo tax ci taarif bi nga dégg ci màkka dé nga dégg ci baytullaahil xaraam ngir mu làmboowaale mina làmboowaale it musdalifa waaye arafa duggut ci baytullaahil xaraam moo tax mu ber ko ne la wa jabali arafa waaye nga jublu ko fii shuhurin maalumaat ci ay weer yoo xam ni weer yu ñu xam la weer yooya ñooy weeru shawaal ak zul qaada ak zul xijja surtout fukki fan ak ñett yu jëkk yi eh, kon jublu ko jublu ko ci ay weer yoo xam ni weer yu ñu xam la waaye it jëfe fa jëf fa ay jëf yoo xam ni jëf yu ñu ràññee la jëf yu ràññeeku te mooy amalul xaj xam ni tawaaf da cee bokk sa'i da cee bokk bay na eh, safa wal marwa ramyul jamaraat daf ca bokk naxar daf ca bokk yooye yépp yooye lañ naan al amalul maxsuusa yi nga xam ni pour xaj mën a mat la budda ñett yi daje ci barab bi eh, ak weer yi ak jëf yañu fay jëf kon ñett yi bu dajewul eh, xaj amul Eh, nga dem màkka walla nga dem feneen fu dut màkka donte da nga fay def lu niroog xaj sax loola tuddul xaj shar'an waaye nga dem màkka eh, ci weer woo xam ni du weeru xaj comme tey jii ñu nekk nii ci weer wi ñu dugg nii nga dem ca màkka ne da ngay aji ci weer wii loola nga defit du xaj loola nga defit du xaj ndax laa bu da tënku ca weer yooya nga xam ni weer yu ñu xam la waaye boo fa demee it xool ay at ak i jëf yu mu la yu la neex dem ca kaaba ga dundal guddi yépp ñaari weer yeeg fukki fan ñett di ko fi la lu baax la naam waaye loola nga def du aj ndax aj dañ ko tënk ci amaal yoo xam ni amaal maxsuusa la looloo tax sunu borom di wax ni alxajju ashhurum maalumaatun fa man farada fihinna alxajja fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxajj wa maa tafaalu min xayrin yaalamhu llah wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa wa taquuni yaa ulil albaab suñ borom nee na alxajj xaj day ashhurun ay weer la maalumaatun di weer yu ñu ràññee weer yu ñu xam nee xaj weer yu ñu xam la fa man farada fihinna alxajja képp koo xam ni engagé nga ci xaj gàddu nga ci xaj sóobu nga ci cib xaj bu boobaa laa bu da nga tënku ca la nga xam ni mooy suruti xaj yaa xam barab bala yaa xam weer wala yaa xam jëf yañ fa war a jëf la kon ci taarifu xaj loola moo ci rot laa bu da nga tënku ci ñett yooya pour loola nga def mën a tudd xaj ñaareel bi mooy ngéneeli xaj e, yonent bi sallallahu alayhi wa e, leeral na jàngale na xamle na ngëneel ya nga xam ni ñoo nekk ci xaj waaye yool yu rëy yi ne ci xaj waaye it far gi nga xam ni xaj da koy far ay bàkkaar aïcha radiallahu taala anha wax na ni eh, ne moom aïcha dafa mas a wax ni yaa rasulallah naral jihaada waaw insha allah eh, aïcha na dafa mas a wax ni yow yonent yàlla bi نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور yonent bi Aïcha dafa yow yonent bi day damaa gis ni jihaad li ci yàlla wax ci lu baax li ci sunu boroom wax ci ay ngëneel dafa mel ni mooy jëf ji ci jëf yi lu tee ñun jigéen ñi ñu mën a jihaad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko déedéet la gën ci xeeti jihaad mooy xaj gu ñu nangu kon xaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko tuddee jihaad bu ñu delloo ci ngëneel yu rëy yi nga xam ni sunu boroom subhanahu wa taala da ko wax ci jihaad yonent bi jël jihaad lëkkale kook xaj waaye sax nag jël xaj def ko mu doon façon yi jihaad yi gën ci façon yi jihaad yi yonent bi sallallahu ba tey wax na ci ngëneelu xaj man xajja lillaahi fa lam yarfus wa lam yafsuq rajaaka yawmi waladathu ummu képp koo xam ni xaj nga te sa xaj defuloo ca lenn loo xam ni wàllu bànneex la e, waaye it defuloo ca lenn loo xam ni wàllu fisq la bu boobaa boo paree xaj ga da nga dellu ñibbi mel ni keroog nga juddu mel ni keroog nga juddu e, ndax say bàkkaar yépp ñu faru comme ni ko sëñ bi waxe wa xajjatun mabruratun laysa jaza laha siwal jannati fi ma ubrisa xaj goo xam ne suñ borom da ko nangu amut lenn lu koy sunu borom di fayee lu dul àjjana ndax dala dana la bàyyi ba du desal ci say ci yow benn bàkkaar ba tey yonent bi sallallahu wax na ni salaatun fil masjidil haraami afdalu min alfi salaatin fi ma siwaa julli genn julli rek ci almasjidul haram te mooy eh, kaaba ga nekk ca màkka julli fa benn julli moo gën julli téeméeri junni julli ci jàkka judut jàkk judut jooja kon benn tisbaar joo julli ca kaaba ga ci jeneen jàkka judut jàkka jàkka jooja lu dut nag jàkka yonent bi ak almasjidul aqsa bu dee jàkka yonent bi julli ca kaaba ga mi ngi ko gën téeméeri yoon bu fekkee ni julli ca masjidul aqsa la Eh, jullee ca eh, kaaba ga mu ngi ko gënee lu toll ci eh, junni yoon kon jullee ca kaaba ga ngëneel googu la am te ku yàlla dimbali nga dem xaaj dinga fa mën a jullee ay julli yu bare bare bari genn julli bu nekk mën na toll ci téeméeri junni julli te boo xoolee téeméeri junni julli xajut daanaka xawut xaj ci dund ku guddut fan lool xaw na jege juróom ñett juróom benn fukki at jenn julli rek nga julli ko ñu faye la ko julli juróom benn fukki at loola eh, bari na lool ngëneel lu rëy la lool waaye nga xam ni fii kat aw sas la woo xam ne ñun ñépp ñoo ci bokk yam kon taxamul googu ngay taxamul masuliya ca sas woowa gàddu ga ngay gàdd sa responsabilité ca sas wa ba ñépp nga xool ni ñii ñi fi nekk ñépp mag ñoo ma bokk bokk sas foofu amul ni diw def na lépp moo ñu ko defal déedéet bu ngeen fa xasee daje yéen ñëpp a yem kenn du defal kenn lenn lu mu mën ku nekk yaa koy defal sa bopp kon dala tàggat ci farlu tàggat la ci engagement waaye tàggat la it ci góorgóorlu e, la ngay def nga def ko te doo ci sukkandiku ci kenn loola tax na yonent bi tudde xaj googu ne ko jihaad la jihaad la bokk na ci njariñ yee gën a rëy it ci njariñi xaj mooy ni xaj dafa mel ni congrès la sim la eh, waaye ijtima àmm la goo xam ne pour jullit ñépp daje ci gox yépp ci àdduna eh, man caa waxtaane waxtaan woo xam ne dana njariñ xeet wi man caa waxtaane waxtaan woo xam ni dana njariñ lislaam dana jëme lislaam kanam waaye dana leeral ay lënt lënt yu bari yoo xam ni eh, lëntoon na ci lenn ci jullit ñi waaye xajit mawsim la woo xam ni mënees na caa profitoo ci islaahu daatil bayn diggante réew ak réew bu fekkoon ni jullit ñi e, nekkuñu woon ci waxan nekkuñu woon ci doyadi nekkuñu woon ci ñàkk solo ba tax seeni mbir ñu ngi leen koy fajale ci yeneeni réew yu dul réew jullit bu ñu nekkul woon ci waxan ci ñàkk solo ñàkk doyadi ak doyadi bu toll ni fi mu toll tey seeni problème yépp mënoon nañ di profité di ko lijjanti ci xaj yi réewu jullit ak réewu jullit am problème xaj waroon na koo mën a lijjanti xaj waru woon doon loo xam ne dañ cay profité di ca teele ñenn ñi wala di teg ay charte yu diis ci yenn réew yi ci ni bu ñu war du ñu ñëw xaj yi xaj warul woon a doon ni mu ko doone ci jamono ji e boo réew ak réew am problème nga gàllankoor ko ci ñëw ci ci ci ñëw xajam wala nga am ak réew sàngam problème nekkoon kon du ma fa dem xaj yi yooyu yëpp gis nañ ko ci jamono ji am réew ne réew du xaj wala am réew ne man sama waa réew du ñu xaj ren ndax réew mooma ñuy xaji eh, damaa am ñoom problème sàngam ak sàngam waaye xaj dafa waroon a doon comme ni mu ko doone woon mawsim boo xam ni problème ya amoon ci diggante jullit ñi daan nañu profité di ko régler eh, ci jamono yi xaj kon mawsim la koo xam ni mawsimu islaahu daatil bayni la mawsimu defar defaran toola mawsimu boole jullit ñi la eh, waaye it mawsimu dëgëral ak cofeel ak mbokkoo ci diggante jullit ñi la eh, comme na mu ko doone woon tawaroon koo doon ba tey bokk na ci njariñi xaj ba tey eh, njariñu jënd ak njaay comme niñ ko junje léegi waaye it njariñu ya nga xam ni mooy hëdaayaa yi ak daxaayaa yi nga xam ne dañ koy rey foofa muy tabaski yeeg hët yeeñ fay rey mu doon yàpp woo xam ni jullit ñu baree baree bari danañ ci jariñu eh, waa réew moomu danañ ci jariñu waaye it dana am yeneen réew ak lu ñu sori sori yoo xam ni eh, gàtt yooya eh, ñuy reye foofa danañ leen ko yónnee ba mu yegg ci ñoom kon yooyu it daa bokk ci njariñ yi xaj yi nga xam ni sunu borom da koo def ci xaj comme ni ko sunu borom waxee lakum fiha manaafiu ila ajalin musamma waaye mu waxat ni laysa aleykum junaaxun an tabtaxu fadlan min rabbikum suñ borom nee na dem aji di defaale commerce dem aji di fàgguwaale alal yàlla nee na loolu aayut ku ko mën a def ci anam goo xam ne anam gu set la ku ko mën a def ci anam gañ la ko sante sañ nga koo def moo tax mu ne laysa aleykum junaaxun an tabtaxu fadlan min rabbikum kon ibtixaawul fadl min min rabbikum googa suñu borom junj fii dara taxu koo jóg lu dut rek jënd ak njaay ak ay bisnes ak ay jëflante yoo xam ni jëflante yu lay indil poñexitu dunduk àdduna la loola eh, aayut ci jamonoy xaj kon loola eh, njariñ la bu bokk ci njariñ yi nga xam ni eh, dafa nekk ci xaj ba tey Eh, bu ñu jógee ci tënk rek loola nga xam ni ay njariñ la yu ñu tudd te mu aju ci xaj danañu dellu ci delluwaat ci ñetteelu point ba te mooy aasaarul xaj jeexital yi nga xam ni eh, xaj mën na koo jeexital ci dundu jullit bi eh, ñu nekkoon ba tey xaj daara la joo xam ni daaray tarbiya la waaye daaray tarbiya ju rëy waaye xajit jamonoy euh, tadrib la xam ne dañ lay tadrib di lay entraîner euh, ci école wala ci daara joo xam ne dañ lay entraîner ci nga jàng fa muñ ci nga jàng fa farlu ci nga jàng fa góor góorgóorlu ci nga jàng fa it nangu waaye ci nga jàng fa ak toroxlu wàccee sa bopp kon loola nga fàggoo ca xaj ca xeeti njariñ yooya e war naa am jeexital ci yow ca gannaaw boo delloo ci sa kër war naa am jeexital ci yow kon dafa bokk ci jeexital ya ku jóge xaj jikko yooya nga xam ni da nga kaa jële ca xaj danga ko faa fàggoo nga fexe jéem a cuub sa bopp ak jikko yooya ba mën koo dund li des ci sa li la dese ci àdduna e ba man caa gën di yokkoo ci fàggu li nga xam ne mooy ngërëmal sunu borom e bokk na ci aasaar yooyu e sunu borom li mu wax ni li yashhadu manafia lahum wa yadkuru sma allahi fi ayamin maalumat ala ma razaqahum min bahimati l teewe xaj jariñu ci sax ci tudd yàlla ci bisi xaj e tudd ko nag ci sababuk la nga xam ni moom la leen xéewal ci ay xeeti bahimatul an'am xeeti gàtt ya nga xam ni des na ko fa des na ko fa rey njariñ la continuer e yàgg lool ci seen loxo comme niñ ko seedee niñ ko teewe ci jamono jii nga xam ni eh, yàpp yañ nga xam ni ñu ngi ko fay rey yàpp yenn saa yi dina des ba at ma delsi tey dinañ ko séddalee ci réew yu bari yoo xam ne ay réewi lislaam lañu bokk na ba tey aasaar yi nga xam ni aj da ko am ci ginnaaw bu aji xaj ji jógee màkk xaj ba ñëw bokk na ci eh, mooy mu sax di teewlu màggug sunu boroom subhaanahu wa taala mu xam ni kat la mu fàgg woon ci alal ba man caa dem màkka xaj néegu yàlla bi e amut lenn loo xam ni fàggu na ko mas na ko fàggu ci alal dugal dugal ko fenn foo xam ni gën na fii mu ko dugal nii te mooy dem màkka xaj ndax bu ñu fàttee li yonent bi sallallahu alayhi wa jàngale woon ne bis pénc kenn du jéggi siraat lu dul ni danañ la laaj dërëm boo mas a am foo ko jële waaye it dërëm boo mas a am ba nga ko fàggoo ba pare fan nga ko dugal kon loola nga xam ni da koo fàggu fàggu woo xam ne fàggu gu leew la fàggu gu set la yóbbu ko xaje ko màkka eh, delsiwaat loola dana la jeexital googa dana des ci yow ba bu boobaa bis pénc ca lañ lay laaj ca la nga fàggu ci alal fa nga ko dugaloon ku tudd ne sama alal sàngam ci xaj laa ko dugal yow bu boobaa mënees na le ji gàcce ngaalaama ndax dugal nga ko foo xam ni kenn dugalul alal fu gën a yell kenn gën alal foo xam ni foofa la ngërëmal yàlla subhanahu wa taala ëppee kon bokk na ci ci jeexital yi nga xam ni xaj da koy def ci nit ki mooy ni aji xaj gi bu fekkee ni iltizaam na tënku na ci xaj eh, ci noona ko sunu borom digale ci waxtu yooya ci bis yooya ci anam yooya waaye it ci jëfin jooja mu ko doon jëfe loola dana ko tadrib dana ko dimbali ci ay mbiram yépp mu mën koo nose ndax yàlla ay mbiram yépp da koo nose ndax bu jëlee bis bis bisu juróom ñetteel ba xam ni ca la xaj commencé ñu tudde ko yow mu tarwiya eh, ci ngay dem Mina te bis boobu ñépp dañoo war a dem Mina nga fanaan Mina war fa xëye dem Arafat xam ni sant ñu la nga jiitu loola waaye sant ñu la it nga dem Mina lu jiitu bisu juróom-ñetteel ba kon dañ la ko waxtul boo demee Mina it dafa am nu ñu la sante nga nekke fa e, bisu juróom-ñeenteel ba nga xëy dem Arafaat fa nga yendu ba keroog jant ba so bu jant bi sowee nga doog faa jógee delsiwaat ñëw Musdalifa boo fa jógee lu jiitu jant ba so coow la ca ne xamees na ko ba xam e, e, baax na wala baaxut waaye du tee utal nañ la ay waxtu waxtu wa nga fay dem ak waxtu wa fay jóge ñëw fanaan si musdalifa loo yàkkamti yàkkamti sonn ñu ne demal musdalifa lu mu bon bon nga nekk fa ba lu mu gàtt gàtt nga nekk fa ba guddi ga xaaj kon loolu yépp ay nose la yoo xam ni sharia daf la ko noseel ci sa waxtu nga jóge musdalifa it xëye dem eh, mina immaa nga dem ca man xar ba fa ñuy rendee gàtt ya bu dee da ngaa war a rendi wala nga continuer dem tawaaful ifaada wala nga dem sànni ji jamratul aqaba ndax ñett yooya loo ca jiital rek baax na ndax keroog bis la boo xam ni bisu xajj yonent bi loo luñ ko laaj am na ñu ñëw laaj ko ne ko man day damaa rendi lu jëkk may ram yu jamra may sànni jamra yonent bi ne ko ifal wala xaraj keneen ñëw ne ko man kat damaa sànni ta fekk rendeeguma mu ne ko ifal wala xaraj kenn ñëw ne ko man day damaa def tawaaful ifaada te fekk demaguma sànni mu ne ko ifal wala xaraj kon yooyu loo ca jiital rek ak loo ca mujjeel rek yonent bi sallallahu alayhi la mu ca tegoon mooy ifal wala xaraj kon bis yooyu nga xam ne mbir yépp dañ koo nose ci anam goo xam ni munoo ko defee nu dul anam googa bu fekkee ni bëgg nga am xajj mabruur loola boo jógee ca xaj ka loola dana la jàngal ne lislaam kat nekkut diine joo xam ni dafay jël mbir yi rek di ko defee eh, eh, di ci taxabut xabuta ashwa du tëñax tëñaxi ci mbir yi waaye mbir mu nekk da koo wuutal àpp waaye da koo wuutal euh, waxtu wuutal ko it anam goo xam ni anam googa lañ koy defe kon xaj dana la jàngal tanzim say mbir tartiib ko e, ba tax boo jógee ca xaj ga e, nga mën a tar say mbir nga mën koo gën a nose ba tey bokk na ci la xaj di jàngal xam ni jeexital la jeexitalu xaj la mooy yow xaaj bi jóge nga sa kër lu mot semaine wala ñaari semaine wala ñett wala ñeent tàggoog sa njaboot ak nekk ak njaboot ni mu neexee ci xol tàggoog say soxna ak nekk ak ñoom lañ lay jàppandala lépp ci ay xadamaat waaye it tàggoog sa dëkk ba nga xam ni moom nga miin tàggoog sa biir kër ga nga xam ni moom nga miin liggéey ba nga doon liggéey nga arrêté ko amaana diggante ba nga ko ba nga ko arrêté ba nga ko taxawale yépp bénéfice ba nga ca daan am lépp dafay dagg yooyu yépp ko ginnaaw nga waccu ko ginnaaw dem wuyu ji sunu boroom eh, ci wooteem ba loola it dana la miinal dana la tàggat wàcc ci yow jeexitalu bis bi nga xam ni mooy bisub tàggatoo bu mujj ba li imaam ahmad ibnu hanbal doon wax rek dañ ko laaj zuhdu mu ne zuhdu doonut nii dangay bañ sol yére yu rafet doonut zuhdu ni mooy lekk lu naqari waaye nee na zuhdu mooy lu dolleeku ci yow du ko yëg doo ko yëg yére yu rafet bu dolleekoo lekk bu neex sa alal lu ca dolleeku mbégte gi du feeñ ci sa xol waaye lu ca wàññeeku it doo ko yëgal sa bopp ci naqar yow daal sa mbir da nga koo jébbal suñu borom lu mu def ci yow moo gënal la nga bëggal moo gën moo la gënal la nga bëggal sa bopp kon xaj dana la dimbali tàggat la ci jikko yu mel noonu e, ba tey bokk na ci jeexital yi muy wàcc ci aji xaj gi mooy taxaw ga nga taxaw arafa mën na laa fàttali nga gis mbooloo taxaw ci benn pàkk bu yaatu boo xam ni dara tiimu leen ñépp nekk ci naaj wi doon mbooloo moo xam ni da ngay xool ba fa sa bët yem sa ndeyjoor sa càmmoñ wàll woo xool rek dangay gis nit ñi ba fa seen bët yem ku nekk nekk ci yitte kenn faalewul kenn loola dana la fàttali taxawaayu gis penc ba wa xacharnaahum fa lam nuxaadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama xalaqnaakum fàttali bis booba sunu boroom ay jaamam kenn desut ginnaaw ñépp teew nekk ñëw ne maa ngi nii wa uridu ala kenn ku ne yàlla ay mbiram ci wàllu xisaab waaw yàlla ay mbiram ci wàllu xisaab du xisaab ay jumlay nit du jëlub mbooloo xisaab leen kenn ku ne wa uridu ala rabbika saffan ku ne rek danañ la ard ci sa borom da nga jàkkaarloog sa borom mu lijjantil la mu lijjanti lijjanti say mbir lijjantil ko boppam kon ard boobu ca mawxif booba ca taxawaayu arafa mën na laa fàttali fàttali goo xam ne day des ak yow jeexital gi day des ci yow nga xam ni kat dajal ni ñu dajee fii bis pénc noona lañuy ñuy daje ci sunu kanamu kanamu boroom ba kenn ku ne yàlla subhaanahu wa taala janook yow càmbar say mbir laaj la say mbir e xisaab la e imma ilal janna wa imma ilal naar waliyaadu billah kon xaj tamit dana la jàngal e jikko yoo xam ne jikko yu mel noonu la baax kon ci gàttal rek loola mooy eh, benn pàcc bi ci ñaari maqsad yi nga xam ni moom la ñu jublu woon a waxtaan mooy njariñ yi nekk ci xaj eh, ahamiya gi xaj am ngëneel ya ca nekk ak eh, aasaar ya nga xam ni jeexital ya nga xam ni da koy bàyyi ci ki nga xam ni mooy xaj gi la ca des nag insha allah mooy lu aju ci àttey xaj suñ borom walla sëñ bi ca ña ngeen di àndal ña war a dem xaj yi amaana boole na leen nag ñoo xam ni lu aju ci ahkaamul aj ñoom dinañ ko mottali incha allah eh, ci jàngal leen ko bu ngeen demee ci commission yi ngeen di àndal am na ci ñoo xam ni loola moo fay seen liggéey mooy ni dinañ leen tàggat ci ngeen xam naka la ñuy xaje kon ci gàttal loolu benn pàcc la ci waxtaan wi eh, di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci njariñ ñaan ko lu ñu fi wax lépp loo xam ni sawaab la mu saxal ko ci xol yi yombalal jullit yi ñu jëfe ko waaye lépp loo xam ne dafa wuuteeg sawaab yal na yàlla far ko ci xol yi fàtteloo ko ñépp di dellu euh, di ñaanal euh, Cheikh Mouhamadul Muntaqa euh, ci taxawaayam ci njàng njàngale waaye ci taxawaayam ci ponk bi bii nga xam ni moom la ñuy wax nii ci ñi nga xam ni fàggu na taxaw na temm ci ñu war a dem xaj yi jéem a mottali seen ponk bii di ponk bu lislaam bi di juróomeel bi Eh, di ñaan yàlla képp koo xam ne dem na ci ñoom xaj tuyaaba jako sunu borom dig ak la ci yonent bi sallallahu alayhi wax yàlla nañ ko yàlla na ko yàlla defal moom it tuyaaba ju tolloo kenn ku ne la nga am ci tuyaaba ci ci sag xaj te yàlla def leen ñoom ñëpp seen xaj doon xajjan mabruuran def seen saa yi mu doon saayan mashkura hada wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk jullit yi kàddu bi xanaa kàddu yi sant rek la sunu kilifa sunu sëriñ ah, Cheikh Mamadou Mountakha al Khalifa waaye di ko defal Cheikh Mamadou Abdoulaye di sant ñëpp nag di sant yàlla bu baax ci dellusiwaat bi mu dellusi bañ defaat waaye di sant mbokk yi nga xam ne ñooñu ko doon defal sëñ Abdou Lahad ci waxtaan bu am solo bi ñu ci yaakaaroon bu def na ko lépp gis nañ ci gis nañ ko ba gis si lu koroo sëñ Abou Bachir macha allah ah, am am na solo lool li taxoon ñu teg ci kanam am na solo lool danañ leen di sant bu baax di sant bu wàllu bopp bi. nga xam ne xam nañ ne seen yëf la ñu ñëw ànd ko ak ñun di ko taxawoo ñun ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi leen sant mbokk yi nga xam ne daf leen a yàgg a jox ak mu ne dañuy ñëw di ko ànd ak ñun ñu ngi leen di sant bu baax te xam ne yéen rek yéen a tax ñu di ko def bu ngeen fi teewutoon bu ngeen fi teew kon du jàpp ñu di ko def kon yéen ko moom ñu ngi leen di sant yéen ñëpp ah di sant. presse baax a baax seen teewaay ak seen tasaare ndax njàngale lu mu am solo fekkoon fii day am waaye njariñ li day gën a néew waaye nag tas ngeen ba ñor sax dem ci àdduna tax na mu gën a am solo gën a am njariñ kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen woore ñu ànd ko def ko ànd ko ba ca mu génn ñu ànd lépp te yàlla defal ñu min daari minan yaasal minna